ñoo gis ne la décision est portée par Benno Bokk Yaakaar euh, Moustapha Niasse Mamar Samb euh, tous membres éminents de Benno euh, jël parole euh, soññ waa Benno euh, ngir ñu nekk benn alors décision bi si c'est porté par Benno est-ce que kon les risques d'implosion yu ñu doon ragal dina ci dina ci dina ci am waaw xam nga décision politique majeure bu toll ni comme choisir un candidat parce que képp ku waxtaan rek dafam koy bàyyi mu ngi dépendre ci passion bi nga xam ne moo entouré processus su choix bi euh, kenn bu mu yaakaar ne Macky Sall lu mu décidé président Macky Sall donte gëm naa ne ci ñi ëpp ci ñi bokk ci Benno ànd nañu ci te xaaroon nañu ko. dina am ñoo xam ne ne serait-ce que par euh, rejet personnel euh, mun na am ñu siisu mais loolu nekkul implosion implosion ci politique mooy système boo xam ne dafa tas tasar mais bu fekkee ne ñi àndoon nekk benn bokk yaakaar bokkoon yaakaar àndoon di liggéey réew mi su ñu demee ba ki nga xam ne moo leen jiite woon di président Macky Sall décidé ne donte yoon may na ko mu nekk candidat nekkuma candidat mu ngir intérêt Sénégal li yenu maanaa li jaadu woon mooy ñi àndoon ak moom ci boobu passion mooy la l'amour du pays le Sénégal au cœur comme ni mu koy waxee moom ñoo ñëpp dañu waroon def la même sacrifice que moom maanaam fàtte seen bopp ngir li nga xam ne mooy seen projet malheureusement pour des considérations de mon point de vue personnel parce que lenn li ambition personnelle lay doon bëgg naa nekk président parce que yaakaar naa ne matee naa ko wala bëgg naa nekk candidat parce que kii nga ma yaakaar ne bu ñu ko jëlee mu nekk candidat du ma arrangé ci politique loolu taxul implosion am dina am peut-être li ñuy wax scission peut-être ñoom gënalu leen mais déjà maa ngi dégg ne euh, ki nekkoon ministre agriculture di Aly Ngouille Ndiaye moom déjà démissionné na gouvernement bi loolu lu muy tekki bu jëlee mesure am après décision benn Bokk Yaakaar désolidarisé wu ci décision président Macky Sall te moom moo joxoon kàddu président Macky Sall pour mu tànn candidat bi après concertation naturellement et yaakaar naa ne li ci waroon Moustapha Niass dox na ko ñenn ñi nga xam ne président yebaloon na leen pour ñuy dem di waxtaan ak candidat yi xam naa ci lu bari ñooñu def nañu seen i mission am na ñu jëloon seen i initiative personnelle bokk ci majorité présidentielle di dox di wax ak candidat yi pour ñu seet naka la ñuy àndee kon bu nit jëlee décision immédiatement après la décision du président Macky Sall concernant le choix du candidat dafa mel ni ku waajaloon boppam ci loolu la kon kooku jaraloon ñu koy xaar ci maanaam rassemblement après la décision mu des ñeneen ñi dégguma seen déclaration mais li wóor ba wóor mooy seen position warul weesu suba li tax benn mooy ñu adhéré ci li nga xam ne camp bi ñu bokkoon def nañ ko on est en démocratie ku mu neex. nga ne bëgg naa loolu kenn du ko reprocher un homme politique je veux être le premier des le meilleur parmi les meilleurs pour jiiti réew mi loolu ku mu neex war nga ko bëgg est-ce que kenn ku ci nekk ci ñoom matee na ko c'est une question ñaareel ba est-ce que bu ñu demee ba compétition ñëw ñu tànn de manière démocratique parce que noonu laa mën a jàppee démocratie démocratie du rek élection waxtaan ba juboo démocratie la majorité fu muy génn du nekk unanimité am na ñoo xam ne duñ d'accord mais buñ paree dañu war a àndaat pour mun dem ensemble am na ñoo xam ne peut-être duñ ci ànd mooy li nga impulsion